jërë ngeen jëf générique bi départ na euh, euh, bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na Baye Djily ak Père Birahim mbokk internet yi ñu leen di nuyu fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb gis nañ yéene bi ngeen am ci wasaare làmb gis nañ ni surtout euh, Père Birahim wane ngeen ni Père Birahim àdduna la ndax saa su ne rek may gis commentaire yi sama xol di gën a sedd ngeen koy ñaanal wér ngeen koy ñaanal gudd fan ngeen koy ñaanal yàlla suñu borom di gën a yokk xam-xam bi euh, loolu la euh, ñu leen ciy jaajëfal bu baax a baax a baax père maa lay nuyu bu baax a baax a baax. waaw jërëjëf damay auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hmm. maa ngi nuyu mbooloo mi nga xam ne ñooy safoo site bi tudd. Euh, wasaare làmb hmm. di ko jàkkoog sama doom tey muy jiri hmm. may nuyu yow ak ñi nga xam ne caméraman yi ñoom Adama ak ñoom Bachir ak xale yeeg ñëpp hmm. ak ñoom euh, ba sama taab kaagul taagu waaw ñoom ñëpp xale yëpp bàyyiwuma kenn ak jigéen ñitam tam ak borom café gu neex gële sama doom jële ñoom Adama ñëpp maa ngi nuyu ñëpp daal ku lim nag foog nga fam koo fàtte koo jum waaye maa ngi nuyu ñëpp mm. di ñaan sama kàddu yàlla na doon fekk ci jàmm mm. eh, di ñaan tamit ñi nga xam ne ñu ngi safoo père Birahim di waxtaan ak moom dama ñaan a gudd fan mm-hmm. damay ñaan gudd fan googu yàlla nañ ko yàlla boole amiin yaa rabbi seen kàddu yàlla na yàlla barkeel bu barkeel yàlla nañ ko bokk amiin ak réew Sénégal bi ci réew jullit yëpp di ñaan feebar bi nga xam ne mu ngi ci réew mi lëmbe ko yàlla nañ ko fi yàlla tegg amiin yaa rabbi te it yaakaar naa mu ngi ci yoon bi yàlla nañ ko yàlla tegg amiin di kontaan trop et puis mu toog bisimilah maa maa ngi lay déglu. père question bi njëkk bi ma lay laaj. askanu mhm. Sénégal bëgg giñ la bëgg xam nga ko. waaw am na lu ma ci xam parce que mhm. xam nga li tax ma xam ne am na ñu ma bëgg. Mhm. Euh, bëgg du maase yox du maase. maa ngi wax sama benn xarit bu ñuy wax Talla Ndak yàlla na ko yàlla yokk wér. amiin amiin amiin ak ñoom Birame Ndaw Ndoye ak sama gars yi yëpp. mais dama dañ ma daan wax ne tàcc. taaj euh, taaj euh, tàcc du maase yuux du maase loolu li muy firi mooy ñëpp mënuñu laa bëgg mais ñëpp mënuñu laa bañ waaye pour nga xam ne xam ne nit ñi am na fu ñu la teg mm-hmm. foo fu ñu foo génn ñu teral la rek mm-hmm. seetaata sama xam ne am na fu la nit ñi teg dëgg la bi may départ sama kër léegi dama jël oto di ñëw fi may fayee booy bi dama père naa la mm-hmm. te xam nga te xaw wallaahi xaw ma ko ma jëlee fa oto di ñëwaat beneen booy jëlaat kaar bi ma ñëwaat fi ma jëlaat ki ma jëlaatoo ma ma joxe deux cent daggal ma billet mu ne mooy may fay billet bi mu ne ma père jëndal naa la billet ma ne ko ah, yow jëlal billet xam ne mu ne maa la ko fayal te kooku dañu ànd ba fii encore tamit mu lambaat poosam yëkkati xaalis jox ma ne ma am dama kontaan si yow père ndeysaan la xaalis baa ngi nii sama poos xam nga loolu su la ko ay di defal yoo xam ne xamoo leen mm. xamoo fuñ dëkk xamoo fa nga xam ne nit ñi am fuñ la teg mm. tekkiwul na ñëpp la bëgg nag waaye daal ñi ma bëgg bari na mm-hmm. te noonu ñu ma bëggee parce que laaw ku la ku la jëkk ne bëgg naa la mënoo ko fay. ndeysaan loolu la ma leen di ñaanal jàmm ak sutura ak rek. Hmm. waaw. li wolof naan ku la safoo nga faale ko. kon loolu la àdduna bi noonu la demee. Hmm. Euh, Père Birahim Père Birahim àdduna la. per tey ñu buggoon waxtaan ci leneen. Hmm. dinañ ñëw ci écran bi ci deuxième partie bi. waaw euh, mais tey li ma buggoon ñu waxtaan. mooy jëmmi mbër. mbër lan moo koy def mu doon mbër. ci làmb ci nan la mbër di sosoo. ba nga xam ni kii kat euh, mbër la ak mu doon mbër lan la mën a def ba garder succès boobu di di di di mbër bi. waaw xam nga mbër. Mhm. Euh, lu yàlla def ci ni rek la. Mhm. kenn jigéen mënut ëmb ji ëmb doom. ne mhm. sama doom ji mbër lay doon. dëgg la. mënul ëmb doom ne sama doom ji président dafay lay doon wala nangam lay doon wala lii lay doon déedéet. yow jur rek la war. bi nga ko juree tamit yàlla moo yàlla mooy bind doomu aadama mhm. bi ko yàlla bindee tamit moo ko bind ci ni mu ko bindee mhm. soit mu njool wala mu gàtt mhm. wala mu wér wala mu wéradi loolu day am ci doomaadama aadama dafa am yoo xam ne yàlla dina may dañoo wér feebar yombu leen ñooñu dañoo solide mooy daal defa dañoo dëgër loolu day am ci doomu aadama en même temps lu ko defee nag bu la yàlla mayee nag ngay juddi màgg na léegi nag yàlla moo la tànnoo ñii football la ñu bëgg ñii daw la ñu bëgg ñii bëri la ñu bëgg ñii tëb la ñu bëgg ne hmm. kenn ku ne daal yàlla mooy def la nga choisir soxol xol ko hmm. dégg nga foye ko boo gisee tubaab yi bari xam-xam ci ndaw gi bu ñu gisee ndaw nekk xale di foye dara rek hmm. la mu foye dañu xam ne kii kii loolu la war a adopté ci lañ koy poussé waaw loolu dafay dem ci bal boobu moo tax nit dina nekk ci dara am ci teraanga ñu ne ah léegi loolu day xamoon naa ne kii di bëri bëri ju bett moom papa Bachir mii léegi bi may woo téléphone bi mu ko naan Birahim moomu de est-ce que du Birahim Ndiaye déggee ci bëri bett ñu bëri tey bi ñu ma déggee ci làmb bettu parce que mm. xam nañu bi may xale loolu laa fooye loolu la arrivé ñu bëri nag mm. muy benn loolu dina dina dimbal mm. dina def tamit nit ki nag gis ay morom di tedd ci dara rek mu ne ah man daal ñuy sutu ñu ma ëpp ñu ma man dinaa ci tedd bu boobaa nag euh, ñoom dañ koy jox xam bu boobaa yàlla mën na def ñu réussir ci yàlla man def tamit bon ah ñu doon làmb mu dëgër loolu tamit dafay am waaw parce que léeg-léeg nga gis nit mu commencé doon mu dem ba mbër gi dab ko ci biiram hmm. parce que ay mbër lay fréquenté moom lay bëree ñoom lay foodool ñoom lay defa dool lépp hmm. bu nga xam ne bi muy commencé sax mënul hmm. waaye na ba mujj gi écrit bi kenn mëntu ko fee te bu muy dugg sax da ko doon foyee seetaan nii ba mu yàgg rek mu jékki-jékki rek ne ah ñii daal mënuñu ma xaaral ma commencé di foofu ba mujj gi mu doon bu champion loolu ça arrive waaw léegi nag ci biir nga foyee nag yàlla mooy ubbi xéewal yi ubbi wërsëg yi nga dem nag ba yàlla ubbi la ci teraanga ju yaatu nga dem lépp lu bari wuy si la loo xam ne kenn foogu ko woon ah loolu nag géré ko nag ah loolu benn yoon la. per mu am loo xamante ni dama koy gis d'habitude ci mbër yi. Mm-hmm. Mm-hmm. mbër bu ci nekk da daan dugg si ci làmb ñu ne kii mënul bëri mais lii la am. Mm-hmm. comme tey mën naa tudd ñetti mbër yoo xamante ni ku ci nekk fi mu toll ci làmb fi mu toll nii. Mm-hmm. Euh, mënoo tudd champion ci làmb te doo leen ci boole. Mm-hmm. te dañ doon wax benn kële lañu am. wala mm-hmm. seen làmb seen bëre màccut. benn ci guy gi dañ doon wax naan ku mu jàpp rek da lay loolu kese la am ci làmb. daan naa dégg lu bëree bëri nga koy wax ci moom. naan mbër moo xamante ne lii forum la. Euh, bul ko ko bañal mais fexeel ba bum la ko def. Euh, ñaareel bi mooy ku mel ni Tapha ñu bari ci làmb dañ doon wax naan plaqué rek la am. bu la plaqué Euh, ñetteel bi ñu gis ko ku mel ni bombardier hmm. façon bëre bi nga xamante ne bu la jàppee rek hmm. dañuy ñàkk ni ñàkk nga sa làmb parce que dañ naa am na kàttan jàppam mooy fooram ñoom ñetti ñooñu lan nga mën a wax ci façon bëre yooyu ñuy bëre waaw xam nga li ma la wax rek xam nga gone da hmm. am euh, maanaam euh, am manin mooy loolu li nga judduwaale yi nga xam ne sa manin la da koy foye loolu mooy sa foor gis nga dama lay wax ne ponkal borom doole ku mat mbër laa tax du bari fenn moo judduwaale wu ko maanaam hmm. mu boo doon oto oto bu mag oto bu ndaw pour ñuy seetaan tey dawal oto hmm. remorque bi fi mu mën a jaar hmm. kat bu ndaw mënu oto bu ndaw bi a jaar remorque mënu fee jaar mu xat mu jaar fa fa dem moo tax borom doole de benn mënin lay am ci lay tooje làmb champion yi nga fi dëgg yëpp yëpp ca ñoom Robert Diouf ca ñoom Mbaye Guèye ba ci ñeneen ba ci ñoom gubale sax ñeneen ñëpp koo fi dégg tey mu toj làmb benn mënin la amoon ci la daan ñëpp benn mën benn for mhm. dañ naan moytul bu mu la def nangam moytul bu mu la def nangam ba ca daan mhm. kooku mooy fooram maanaam ay ngereju sew sewaan yi ca biir nag mhm. yoo xam ne da koy gëstu mooy nga gis jii li def benn ngereju nga naa ah, da rafet na am ah, prise bi mu def ni daal dangam dangam exemple laay joxe parce que ñooy samay caméraman dégg nga nga ne ah kii de prise bi mu def oo oh, jëlam tey bi ni mu rafet kii de top 5 la kii daal man dinaa ko nga dem entraînement jàng ko mën ko hmm. c'est mu yokk sa xam-xam moo tax may la xale yi lépp lu ñu doon jàng tey bu ñu mënee lii bu ñu demee nañ jàng lii hmm. bu ñu mënee lii bu ñuy entraînement nañ jàng li ñu mënul hmm. parce que jàng li nga mënul loolu mooy tax nga yokku ñooñu nag ay mastodon la ñu ñi nga fi tudd ay ponkal la ñu benn man rek la ñu am parce que guy gi moom ngay wax noonu mas ba muy bëre euh, Mbaye Diouf ca 2STV dama ne ko yow màgg bëre nga mbay juune ko màgg bëri nga ma ne ko màgg bëri goo nga ko wax ma ne ko ci lay daana ñëpp hmm. parce que am na mënin boo xam ne bii ku ko mënta xañ mënoo koo daan hmm. mooy jàpp boobu tey ba loxoom dëgër mu simple la mu simple est-ce boo bëri gisagul nga guy mu jàpp ba dëgër ba tey ñaar loxoom dëgër hmm. ah ñu fettal ci loxo yenn ko dóor suuf déedéet waaw ah, moo tax may nit ak mëninam moytu rek nit ak lu mu mëne fexeel ba bu mu la ko def wala su la ko defee fexeel ba noo ci génne nga jàng noo ci génne loolu mooy xam-xam waaye mënuma cee daan ñoom te la waaw euh, Tapha dañ la wax naan façon plaqué boobu la am. Hmm. ak simple yenn ko ci kaw. teg see door waaw ñu ne moom la dese woon ci làmb te fi mu toll nii ba tey euh, mënoo tudd ñetti mbër ci kaw te doo ko ci boole. loolu mën a cee daan Sénégal yëpp. Hmm. ah yottam man foog ak maninam. Hmm. mën a cee daan ñëpp. nañu fexe ba mu leen plaqué. nañu fexe ba mu leen simpi. comme lii la mënee na nga fexe ba mu la simpi na bu la plaqué. nit kay daañu ne lii la mën nangam la man na nga fexe ba mu la ko def anamu tey moo tax mooy nit mbokkal du bari fenn. Mhm. du bari ay ngelaw yi comme genre mbëri ndaw yi. plusieurs affaires yooyu ñuy def muy daar ngay dar sa gémmiñ. Mhm. loolu ponkal mënu ko. déedéet borom doole. Mhm. da lay wan doole rek xarmat rek yenn dóor suuf nga ñëw rek mu namañe rek yenn dóor suuf. nakas rek daal dem nga wuti keneen loolu rek la ponkal di bëree. waaye da ay yu rafet yooyu dem ay top cinq yooyu di ko daane. bariwul ci ponkal. moo tax amateur yu bari dañ naan làmb xale yi ñoo dàq mbër yu mag yi. waaw parce que mm. foofu di nga fay gis bëree parce que mm. ñoom lu ne la ñuy def ci bëri bi lu ne la def ci bëri parce que ñoom seen taille moo leen ko may. Mm. ñenn ñi nag ponkal yi nga xam ne ay ay deux mètres lañu wala ay deux mètres nekk ay cent et quelques yenn prise yi seen seen doole mayu leen ko. maanaam seen vivacité seen gaawaay du leen ko mën. mën nga koy def sa far toog. mën ngay jéem a waane sax daanu jël bu soof. fekk waane doo nga la ci defal la nga gën a yomb rek comme laaj ñu ko dóor laaj ñu ko dañ naan ko daan daanal bi gën a yomb rek dem si yoon mu amaat leneen loo xamante ne mooy mhm. question bi ma lay laajaat waaw euh, muy mbër mhm. bu njëkk dañ daan gis mbër bu nekk ci lancé bu baax mhm. ba ñu bari ci moom am yaakaar ci moom ñu jékki-jékki gis carrière am tagga témbe wala carrière am jaaree fa sax dagg lan mooy waral loolu waa li koy waral bari na benn bi mooy gone ci ba dañu am gërëmul waaw dañuy commencé beew daal di am tuuti taraanga rek fàtte ña nga àndaloon cof beru loolu war la mhm. parce que alxuraan daf ñuy wax inna allah laa yahdi kaydal xaa'iniin alxuraan téere bi daf ñu borom bi dara daf nañ ne yàlla du ma jubal pexe workat mhm. ngay ànd ak nit ba mu nga dara nga dem ba taraanga wuy si la nga xamatoo leen mhm. loolu tam war a da ngay fay muy benn ñaareel ba nit ki lu muy def da ci am nga ngërëmal ndigal waajuram ñetteel ba mooy mbër dafa am day am gétt gétt mooy lan maanaam maanaam foo xam ne lu mu guddi guddi guddi guddi di nga fanaani seen kër waaye bu dee fekkee ne ala ji li ñu ne ah mu nga géej way tey mu nga part mu nga parcelle mu nga fële mu nga jurbel mu nga ciyaas mm. fu nekk fu ñu def dëdd fa doo def carrière mm. moo tax ñoo dem ba dee am gétt mm-hmm. foo mën a nekk bu lu mu gudd guddi ñoo fanaan seen kër mm-hmm. ñoo xam ne fu ñu la soxla fekk la seen biir kër mm-hmm. loolu gàllaaj la ci mbër mm. muy benn fu la neex añee fu la neex reere tamit mbër du ko def bu ko defee doo def carrière doo def comme man foo dem rek jëbb sa loxo. waaw waaw loolu saa yoo ko defee. Hmm. mooy loolu loolu day tere freiné mbër. Hmm. mbër du ko di xaar. Hmm. xaaraan foo añee tey bu subaa nga reere fii bu subaa nga reere fooy doo def carrière. ñaar waaw ñetteel bi mooy dégg mbër day teel a tëdd. teel a tëdd guddee nelaw baaxul ci mbër. da ngay teel a tëdd parce que boo teel nee tëdd foog nga teel a yeewu. bëri de koo ci xool ci ligne bi deux heures du matin gis ko. boo loolu nag moom nag lu bon ci ñoom la nag <laughs> parce que ñàkk nelaw. mooy waral ngay entraîné ba xëy màggat doo am forme mukk ci àdduna. ndeysaan man nga kii day entraîné vingt quatre sur vingt quatre mais du job forme mukk ci àdduna. ñu naan kii lu ko dal ak dafa dund dañ ko liggéey kenn liggéeyu la mooy xam nga lan la. Hmm. da ngaa récupéré maanaam doo teel a tëdd di teel a yow war a tëdd di lekk baax di teel a tëdd mën a nelaw ba nelaw ànd ak sa sa di teel a yow mhm. loolu athlète bu ko ci deful doo dem daa ko defal léegi bi ci gën a bon gën a bon nag mooy nga nga nga nekk mbër muy war saa yoo nee droite nga jëm gauche nga jëm soo nee gauche gauche droite nga jëm loolu dem boo amee ndam suba doo ko am mhm. ko nga dañ maa liggéey dañ maa war a ñimaan dafa kenn waru la yaa jaaru fa nga war a jaar mhm. ñett benn tamit dinaa la ko ci waxaale mooy soo amul daamee dara ñu am di bokk yow sa ñaan seen ñaar téeméer ak sa téeméer ak di ko bokk yow ba nga mënul hmm. bis bu taraanga muy seedee gestu waaye bëri cent million wala quarante millions cinquante millions wala vingt millions def ci sa hmm. poche hmm. ña nga àndal bu ñu xëyee di lijjanti ndekki wala di lijjanti reer doo mujj fenn da ngay tabax état su jamono day daanu parce que àq yi da koo bëri àq yi da koo àq yi da caa bari mbër day génne ñëw bët xam nga li ma la père pourtant li ngay wax nii dafa am solo ci même ku dul mbër sax. Ah. war naa xam ni wax ji war na koo mën a laal. waaw waaw parce que mm. wax waxu ni àddina lay waxal. parce que ñamu bët dafa baax ci nit. ki mm, lay jàppale ba nga amul dara. waaw boo mënee war nga koo mën a gestu. moom moom nga war a jëkk gestu. Mm. waaye ànd ak mbër di kontaan ak moom guddeeg bëccëg. yéen a nekk entraînement yéen tëddoo guddi ca te boo dem di jënti loo reere ñenn ñi amuñ fu ñu dëkk dañoo luyee fu ñu dëkk bu weer dee dañu ñu fay ne ñu leen génne yow mi mbër mu mag mi nekk ci kenn boisson sax duñ ko ci ñi lay encadré ci géew bi ni ñu bëree bu ñu paree doo ci gis kenn boisson mais alal jooju mën nga koo lekk mu rees mu ci jàmm ci salaam nga tabax say kër tabax say bien ba xëy bàyyi làmb te dara jotu la boo ko defee dama xam ne àddina yaa fi man moo tax wolof lu mu wax dëgg la ah waaw wolof nee na ku la abal almet ba tax nga boyal ah. bu la ñaanee xal boo goree war nga ne ko tibbal waaw kon nag Père Birahim daal Père <laughs> Birahim la bilaay xam-xam xam ko ah, nga parce que yooyu yëpp dama ko dama ko dund dama ko gis uh-huh. du lu may nettali di wax nii rek ci kanam écran bi lu ma dund la gis ko ma xam ne te man gis nam lu ma ci dund am lu ma ci gis uh-huh. moo tax di góorgóorlu sàmm kóllëre di téye seen nitu démb uh-huh. kóllëre dafa am solo ci doomu aadama li may waxal nit day sàmm kóllëreem di fàttaliku nitu démbam waaw mais bu fekkee ne loo weesu fàtte nga ko. ku la woon ginnaaw fàtte na ko. ah bu yàggee ëllëg si biir bu làmb jeexee nga ñàkk ñëpp. Hmm. parce que boo ni bi nga nekkee sa digg si si ñëpp wër la jamono yooyu ñëpp koo soxla di ñu ko gis. Hmm. ñëpp la wër sa kër di fees del. foo génne ñu kar la foo génne fees del waaye loolu ay jamono la. mbéy gi fu mu mës a génn nit ñi dar ko. Double Less noonu Robert noonu. maa ngi leen di dépassé di leen ñaanal wér. waaye ñoo ñëpp ji dañ doon tax anamu tey ku ci gën taxaw ci wér kenn la. kon tey jii boo amee seen i tey. Hmm. da nga leen fonk. Hmm. dégg nga li ma la suñu amee ngénte demal. Hmm. suñu amee dëj demal. bu ñu feebaree dee leen seeti. soo leen taree dee leen dimbali. soo ko defee rek sa carrière da nga dugg ci làmb ji bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabil ne avec pétrole. père léegi loolu ci mbër la jëm. mais ci ki nga xamante ni mooy ànd ak mbër mi. waaw des fois doy ànd ak moom ci bëgg ko. ndax sampion la mu ngi bëre mu ngi nekk ci ay dynamique victoire. Mm-hmm. léegi kooku day dem ba am ay torof torof. ñu ko doon jàppale ay xaritam ak ay am di jàmmam ay njegeñaaleem dootul gisati kenn kenn ci làmb ba day wéet gis naa ci mbër moo xamante ne ki démb ba ma ko seetaanee euh, muy euh, nu mu tuddati ndongoloo mm-hmm. ma seetaan ko li TV vraiment mu mu wax benn image mm-hmm. boo xamante ne mm-hmm. daf ma frappé mu ne ñu ma doon jàppale ñëpp gisatuma ci kenn gisatuma kenn kuy ànd ak man ci làmb ñëpp bàyyi nañ ma ndax defet yi mu doon am est-ce que nit tamit booy ànd ak nit di ko gunge ci làmb noonu nga war a doxaleeg moom waaw parce que tamit xam nga mooy dafa am loo xam ne duñu naa la ko ci mooy. Mm-hmm. ndongo loolu day xale demagul fenn demagul fen booy bu ndaw la. Mm-hmm. amoon na le départ bu neex commencé dem ba am tolof tolof. Mm-hmm. mais loolu lépp boo gisee may neen bëre du métier dama ko daan wax. ñu ma weddi mais bëre du métier. dëgg la bu fekkoon ne am na lu mu jàppal boppam soo ma defalee baax na ma gërëm la waxtaan soo ma defalu ma defal sama bopp. du ma mere kenn. kon boo neexlee boo neexlee boo ñëwee baax na su ma neexlee woon su la gisul tamit. du ma la mere mhm. parce que maa ngi defal sama bopp mhm. te loolu ku ci koo ci deful yaa ngi yedd sa bopp mhm. dégg li ma wax parce que ki lay defal tey jamono mën mu defal la mu mënoon mënatu ko nu mu boo daanatu lu ma lay ak ki la bëgg mu ànd ak yow soo daaree mu ànd ak yow soo daaree mu ànd ak yow te couleur yooyu am na fi. Hmm. mais am na ci yoo xam ne nag mouvement bi rek lañu ànd ak ànd ak yow xumbaay bi ak neexaay bi rek. Hmm. bu làmb jeexee rek jeex na. Hmm. ah dootoo leen gis sax. ndeysaan waaw. mu doon loo xamante ni tey dañ leen ko indiloon ci ponk bi rek euh, doon ko waxtaanee ci kanam tuuti dinañ dellu si ci caméra bi euh, wan leen li nga xamante ni mooy jàngat bi euh, ci ñaari combat ay champion su ko defee ñu dem tuuti rek te dellu si waat ay ca ndaanaan laa ñaari kon foo jaar booba laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci bii mën ca mën ci yi boor ak ci yëley nu roowu maag ñoom tuuna rëy ma waa na ma saay maa ko baaxi ñii ma yor si